waaw bu dee oustaz Omar Sall xanaa di wax ne ñi ko plainte ci buntam mbokk ñu ñaan leen ñu retiré plainte bi tariqa tijaan tariqa la boo xam ne bu ñu xamee inkaar la waaye nag bokk ci tariqa yoo xam ne dañuy jëfandikoo seen mbooloo pour songu nit wala pour saaga nit pour dóor nit wala pour plainte nit tarixa bu am tolérance la bu mën a dëkk ku ne la boo xam ne tam weddi ko du ko jig ndax léppam alxuraan ak sunna la kon nit bu fekkee dafa wax lu dul noonu mën nañ ko jubbante ci xam-xam waaye jubbante ko ci beneen bunt état mën na ko de waaye ci kaw mu ubbi euh, ministère boo xam ne nitu ya nitu diine yi kilifa yi borom xam-xam ñoo fay liggéeyee pour nga xam ne dinañ mën a régler société islam bi naka la ñuy dundee ci réew mi duñ bëkkante duñ xeexante duñ def nangam mais question bi question diine la moom en tant que jàngalekat buy jàngale sañ na gis lu mu xamut mu ne lii gisuma ko ci alquran ak sunna su ko defee borom xam-xam yi tontu ko waaye yu mel nii day tax ñoom ñu foog ne ñun amuñu argument moo tax ñu dem pelante kon nit ku mat da ngay nangu ñu lay attaqué di la weddi pour may la occasion pour nga leeral moo tax ñu ngi leen di ñaan ñu retirer plainte bi dégg nga ñun ñëpp ay julli lañ julli ñëpp ay mbokk lañ da nga war a defar seen mbokk ñëpp mënuñoo bokk benn kër ñoo mënuñoo bokk benn dégg-dégg Ibnu Maayaaba ku xam tariixa bi xam ne ku inkaar seexu Tiyaan taalif Cheikh Tiyaan wax Cheikh Tiyaan lu ne ci lu bon waaye fii mag ñi bi mu ñëwee senegal dañ ne maam xalifa na ko tontu moo ko taalif benn téere tontu ko kon dem di saaga nit wala ñuy dóore nit wala ñu def yooyu loolu tarixa bi xamu ko te it loolu dafa bokk ci li nga xamee ne nas euh, tubaab yi nga xam ne ñu bëgg réewi Afrique yi jaxasoo dañuy bëgg toujours ñoom i neen ñuy xeexoo seen biir nga xam ne pétrole ak gaz yi dañu mën di ko récupérer ci suuf nga xam ne dañuy mën a tal yeneen moo tax boo seetee siidi yeeg ahlu sunna yeeg ya ci aju xeex yi ñuy xeex ci àddina bi junni ñi dañuy bëgg toujours ñu ne seen problème seen biir ko defee ñoom ñu nekk suuf di jël kon nag pièce boobu buñ ci daanu dégg nga ku nekk am na droit ne lii xawuma ko fan la tegu du wérut seeni borom tontu la Cheikh Tidiane da wax ne bu ngeen déggee ci man dara peese leen ci alquran sunna bu dëppoo jëlee bu dëppoowul baleen kon nag moom am na droit peese bu dëppoo mu jël bu dëppoowul mu ba waaye am na droit laaj ñi ñi ci ne fan ngeen ko teg ñu tontu ko kon bunt boobu loolu lañ ci wax ñu ngi ñaan nañ retiré plainte bi ñu bàyyi ko mu dem këram continuer lépp lum mu comprendre mu laajte ko aywa borom xam-xam yi wàcc ci terrain bi pour jàmmaale ñoom.